you rebrand it, it's dead. The rebranding may look, make it look like it's alive, but when you remove the packaging, remove the wrapping, what you're going to find is a disappointment. So rather than spend so much on the rebranding and the branding and the marketing and the packaging and the repackaging and changing of the identity and so many things, the real essence of it all is the content does the content meet what you say? Is the content able to deliver on the integrity of its name? And that content is your life and my life. On a national scale, that content is our nation. We are known as the Smiling Coast, a very happy nation, a peaceful nation. When the wrapping is removed, when the rebranding is removed, is the content the same as the wrapping portrayed because nothing that is wrong in content can suddenly become right because it was packaged well. As I end tonight, I want to say make sure your life, as I make sure my life, is more of the content than the packaging because the packaging will look good. If the content is disappointing, what a great disappointment it will be. Once again, Happy New Year, Happy 2012. Let's keep journeying along and the God that we serve, his goodness, his mercy, and his grace will do us well. Have a good evening. God bless us all and good night. MoneyGram, the world becomes a little smaller. Borders become bridges. Oceans become opportunities. And any day becomes a good day to connect. Be it to send money or receive it. Our low rates, 10-minute transactions, and thousands of locations worldwide make connecting easy. And easy is good. MoneyGram. Money transfer. Choice is in your hands wants to be a millionaire. Hello. Hi. Hi, baby boy. Huh. Please give a big round of applause. On my journey, jumps when they start to follow me. Hammer lap, some days they suck. When you live for the buck, we get for the family. <laughs> Honey, it's all about Moochie milk Salt cake. I love it so much. Mom, I love Jim. Please be bringing more. Salt agents, MFH Group, all Sunical outlets, and King Food Banjul. Call us now on 439-4954 or 422-9975. Munchie Biscuit, the best biscuit in town. nanka déedéet duñ def nanka de waaw lu tax loolu Tilaara ma ci flavor yi ma dégg ah. an orange laa bëgg man strawberry laa bëgg man mango laa bëgg man pineapple coconut laa bëgg man berries te tiara flavor drink moo ma sawarloo tiara flavor drink xale yi bëgg nañ ko te itam mag yi bëgg ko ñëw na si juróom benn fosami flavor pineapple pineapple coconut berries strawberry mango ak itam orange ñi leen ko andil ñii di waa MFH group ak waa King Food Banjul Tiara flavored drink moo fi man ah ne lu neex rek a neex billaahi lu neexul bokkul góor ak jigéen ci biir réew mi joxante loxo lu bees juddu na ci biir réew mi lan juddu dimbalante lan juddu lu ñuy wax club foire club foire ci biir réew yi Gambie gii kañ la juddu ba mu juddoo léegi mu ngi am juróom benn weer lana ko tax a ñëw dimbali ñi nga xam ne ñooy liggéey nekk ci suuf mu dimbali leen nag ba ñu jëm ca kanam dama ne Globe Foire oote na lan la oote fundraising kala diina ak lan fashion show bi mooy njëlbeen nag ñu koy def kañ lañ koy def nag ñu ngi koy def fukki fan ci weeru février 2012 bi fan lañ koy defee Kairaba Bar bi hotel lañ koy defee mu ngi tàmbali juróom-ñetti waxtu waaye kan lañu oo kan lañu oo Diouf ca Dakar moom lañ oo ànd ak tam Samba Suso mii way mu neex ci biir réewi Gambie fii dama ne toog rek seetaan lekk ma suur naan ñaata la platinum forty thousand gold thirty thousand silver twenty thousand waaye nag du ko ca biir rek toog seetaan di ticket bi thousand five la kon nag lépp loo xam ne club foire am na ko ci lii daf koy jël nag yóbbu ko ca léebo woot ba ak Royal Victoria Teaching Hospital dimbale leen ko waaye mu ne damay jël nag la ma fa am yóbbu ko ca fan opération Save the Baby bi nga xam ne bii nag suñ kilifa gu baax gi First Lady moo ko taxawal ci biir réew mi kon club foire jóg na jigéen ak góor jàppale réew mi ci Gambia réewi Gambia jóg leen ñëpp dem fukki fan ci weeru février ca Kairaba Beach Hotel juróom-ñetti waxtu dina xumba dina neex ku la foire oote ma ne ku bugg a bokk demal baax ba dee lay def ci yéen neex ba dee lay def ci yéen cay ku la foire ci biir réew tëj bu léegi. ah suñu tëj neex neex. fi la neex neex yem benn neexatul ba mel ni moom. yaay ministère. ooma neex neex yeeg. saf saf yëpp. fii la em. maa la wax li pop drink bi maas lii dafa am sereebul. déggu ma la de. dama ne bu fi kenn get nag on yow naaf ku fi get sa naaf naanal ci pop drink bi say naaf daal li. yaay ministère. ah ni nga ko waxee daal. affaire bi dafa am sereebul. waaye yow lii dafa sereegut. am lii la war waaye nag dogal bi. పబ్జి ఎంబి సబ్ చూసా నే పూనే ఇవే పబ్జి అన్సరేయం card registration man sa ko momo yera sim card register prin kam sel lembang après sel lembang comium qsel ipo ya be register bo jote hani peng ita ben jol ben to jolaji o ka ga nyaati ibi da sim card registration mm. e ko ifo ngai da telephone kala de ifo ngai bita ni bita ya id card sama biometric id card kutama kutama da de wala passport wala voters card wala ida driver license kan. oh, nah? ya, ni luntang la muti banko la sidan kay don beul ja aliens card wallahi la banko me boda ja passport ina wada mala dira jor seje teng pri o kuma ya ta ba maringe na nda fana ni na dimbal be kirgistan o nyun ko yow bari ku gulen bayar e ko momo mo lu bo la registano la ne rogo ne rogo adu ni be momo registala isalon de ni malom ay mo fenke itele tam adu sidno registano me ma sayta ne seyosi faje na ka sayta se aussi anin ke ba ko to be so kayitata e bulu isiwol be sama merol nin kebarngol be anu fana aman jere banan dambira kana jam ibe dawada itu ne batar laje ibe ter laje cew nanga de ngamre alhamdullilah